mbokki internautes yi dal leen ak jàmm tournée économique bu président de la république Macky Sall ay mbóot yoo xam ne ñu ngi koy sulli ndànk-ndànk ndax nag dafa mel ni woon ne moom président de la république Macky Sall askan wi li ñoon doon sàkku ne rek ne ba mu daal di gëjee nag ci intérieur du pays maanaam ci dëkk-dëkkaat yi nag daanaka xaw na yàgg te ah, fu nekk ba mu fay jógee am na ay recommandations yoo xam ne jotoon na ko joxe ci ah, ña ko fa toog bokk na ci maire ya ah, préfet gouverneur ba ci yenn nag ci yoo xam ne ñoo fa daal di nekk waaye nag yooyu la ci ay ndogal ak tamit ay recommandation yu mu daal di joxe daanaka yu ci bëri ko ndax bu mu fa jógee la ñenn ñi daal di wat doq defi leneen loo xam ne sax santuñu leen ko moo tax nag moom président Macky Sall ñëpp jàppoon ne bi le tournée dafa waroon ñëw ngir daal di xool nag yenn liggéey fu mu daal di toll yenn recommandation yi mu daal di joxe woon nag fan lañ ci toll ci liggéey bi waaye nag daanaka ay mbóot moo sulleeku ndax nag ah, bu a ah, demee a ca fële nga xam ne moom mooy ca waala ca duwaan nag dagana gi nga xamante ni ah, ci nag tournée économie bu mujjeewoon def moom président Macky Sall dafa daal di nag sàkk woon ci ñu jënd ay tracteurs yoo xamante ni ñu ngi ko jëndee woon ci benn milliard ci suñu koppar yoo xam ne dañ koy séddale baykat yi foofee di bay wàllum ceeb lépp ngir mën gën a ñoŋal seen liggéey gën liggéey bi gën a gaaw ak tamit li nga xam ne mooy wàllum productivité bi gën a mucc ayib waaye loolee nag gisu ci lenn ndax nag dañoo daal di nag déceler benn scandale boo xamante ni sax bu ñu sukkandikoo ci Thierno Alassane Sall mi nga xam ne moo nekkoon ministre euh, bu ñu joxoon lépp lu jëm ci wàllum énergie wàllum pétrole ak gaz ci réew mi moom itam nga xam ne dafa démissionné woon euh, ci parti bi di APR démissionné woon ci poste de ministre gi nga xam ne moom la daal di nag yoroon moom Thierno Alassane Sall moo décelé bi le scandale ne dañ koy nëpp waaye nag am na juuj njaaj goo xamante ni seetu nañ ko ci tracteur yi nga xamante ni moom Macky Sall joxe woon na a euh, pour ñu jënd ko baaxee ko baykat yi yooyu le tracteur yëpp ndekete dañ koo daal di jël nag ca ay lañ ko daal di nag jël euh, yóbbu ko nag ci diwaanu Mauritanie daal di fay jaay yenn nii ñoom ñi nga xamante ñoo yoroon bi le projet agricole waaye dañ koo jël jël xaalis ba duggal ko seeni poos bàyyi baykat ya euh, benn GIE bi nga xamante ni sax moo waroon daal di yor lépp lu jëm ci exploitation yooyu le euh, tracteur daanaka ca la jaaree fayit ndax amatu woon benn revenu ngir daal di naka fonctionné moom Thierno Alassane Sall daal di ne nag lii ab scandale la goo xamante ni nag daanaka président de la république Macky Sall nag am na ci écho wax nañ ko ko ba mu leer ko naññ waaye yeeyu ci yàbbewu ci boobu ba tey lu dul dem di sëñ fang paysan yi nga xam ne nag yàgg nañoo jooytu lu ñu mel ndax def na lu ëpp ñetti at nag ba ñu jaay yooyu le tracteur euh, daal di koy double milliards ya jaay ko réew Mauritanie ngeen ñu jëfandikoo ca euh, moment boobu nag euh, daanaka productivité réew mi ci wàllum ceeb sax dafa daal di dellu ginnaaw baax a baax ndax nag matériaux yooyu nga xam ne moom la ñu daal di yor ci boppam moo leen daal di nag doyut